benn bésu noflaay yéesu dem ca këru benn kilifaak farisiyen yi ngir lekke fa nit ñaa ngi ko doon xool bu baax faf am ca kanamam nit ku feebaroon ay tànkam niwi yéesu yëkkati baatam ne xutbakat ya ak farisiyen ya ndax jaadu na nu faj ci bésu noflaay bi waaye ñépp ne cell yéesu daldi laal jarak ja faj ko ba noppi ne ko mu ñibbi ginnaaw loolu mu ne leen ku sa doom walla sa yëkk daanu ci teen ndax doo dem génne ji ko ca saa sa fekk sax bisub noflaay la amuñu woon dara lu ñu ciy teg yeesu gis ni gan yi doon tànne toogu yu yiw yi mu daldi leen wax léeb wi bu ñu la wooyee ci xewu céet bul jël toogu bu yiw mën naa am woo nañu it nit ku la ëpp daraja kon ki leen woo yéen ñaar ñépp mën naa ñëw ci yow ne la joxal toog bi nit kii noonu dinga rusa dem ca toogu bu ginnaawe ba waaye bu ñu la wooyee demal ca toogu bu ginnaawe ba bu ko defee kila woo bu agsee ne la sama xarit àggal ca kaw loolu dina la sagal ci ñi nga toogandool ci lekkukaay bi ndaxte képp ku yëkkatiku des na la suufeel te kuy suufeelu dinañu la yëkkati noonu yéesu ne ki ko woo woon lekk boo dee woote añ walla reer bul woo rekk say xarit say doomi ndey say mbokk walla say dëkkandoo yu am alal lu ko mooy ñooñu itam dinañu la woo fay la bor bi waaye boo dee woote lekk wóol néew doole yi làgg yi lafeñ yi ak gumba yi soo ko defee dinga barkeel ndaxte duñu la ko mën a fey waaye dinga jot sak pey bés bi ñu jub di dekki bi mu déggee wax yooyu kenn ca gan ya ne kiy lekk ci ñam yi yàlla di joxe ci nguuram barkeel nga yeesu tontu ko ne dafa amoon nit ku togguloo ay ñam woo ay nit ñu bari bi waxtu lekk jotee mu yónni surga ca ña muy ganale fàttali leen man ngeen a ñëw ndaxte lépp sotti na léegi waaye ñu tàmbali di jégalu ci ngan gi ñoom ñépp ku jëkk ka ne ko dama jënd tool léegi te faaw dem seeti ko maa ngi lay ñaan nga jéggal ma keneen ne dama jënd léegi fukki yëkk te damay dem nii jéem leen a beyloo ba xam maa ngi lay ñaan nga jéggal ma keneen ne ko damay soog a takk jabar looloo tax duma mën a ñëw surga ba dellu ca njaatigeem nettali ko loolu lépp noonu boroom kër ga mer daldi ne surga ba demal gaaw ca pénc yi ak ca mbedd ya ca dëkk ba te indil ma fii néew doole yi ñu làggi ñi gumba yi ak lafañ yi surga ba ñëwaat ne ko sang bi def naa li nga ma sant waaye barab bi feesul noonu njaatige ba ne ko génneel dëkk bi te dem ca yoon ya ak ca tool ya xiir nit ñi ñu dugg si ngir sama kër fees maa ngi leen koy wax ci ñi ma woowoon ci sama reer bi kenn du ci ñam am mbooloo yu rëy yu toppoon ci yéesu ba muy dem ca yoon wa mu gestu ne leen képp ku ñëw ci man te gënalu ma ko baayam yaayam jabaram ay doomam ay magam ak ay rakkam walla sax bakkanam du mën a nekk sama taalibe képp koo xam ni nanguwuloo ñàkk sa bakkan ba mel ni ku ñu daaj ci bant te nga topp ma doo mën a nekk sama taalibe su kenn ci yéen bëggee tabax taaxum kaw ndax du jëkk a toog xalaat ñaata la ko war a dikke ngir seet ba xam ndax am na xaalis bu mën a àggale liggéey bi lu ko mooy su yëkkatee fondement bi te mënu koo àggale ñi koy gis dinañu ko ñaawal naan ko waa ji dafa tàmbalee tabax waaye mënu koo àggale walla boog ban buur mooy dugg ci xare ak beneen buur te jëkkula toog seet ba xam moom ak fukki junniy xarekat mën na xeex ak kiy ñëw ak ñaar fukki xarekat su ko mënul dafa yónnee ndaw ca beneen buur ba fii ak ma ngay sori ngir ñu juboo naka noonu itam ku nekk ci yéen bu dëdduwul li mu am lépp du mën a nekk sama taalibe xam ngeen nag ne xorom lu baax la waaye bu sàppee nan lañu koy delloo cafkaam du jariñ suuf si te du nekk tos dañu koy sànni ca biti déglul bu baax yow mi am ay nopp